waaw bu defee une semaine fantôme yi commencé ko ante waaw Ousmane Sonko dem primature ñu toog hmm. euh, fëgg ci bunt yi xaalis amul hmm. euh, lu bari euh, mag dañ ko doon dañ ko doon dañ ko doon dañ ko doon subventionné xëy na xaalis bu ñu injecté ci subvention bi sax amuñu ko hmm. il faut que ñu ñu ñu lancé yoo xam ne nit ñi dañuy dundee yaakaar moi quand on me dit qu'on euh, quand on dit aux Sénégalais que dañuy revoir le contrat d'affermage entre le Sénégal l'État du Sénégal et Sen'Eau euh, les consommateurs dañuy kontaan quand on dit aux Sénégalais seeni ressources dañ koy càmbal on va revoir les contrats miniers euh, yi dañuy dañuy kontaan quand on dit aux Sénégalais waa kër Macky Sall euh, xaalis bi ñu sàcc dinañ ko débusquer euh, et ñu ñu ñu sax un projet de loi sur les lanceurs de de de, de sur les lanceurs d'alerte ku xam ab càcc na nga ko na ko boole boo ko boolee euh, di nga ci am di nga ci am pour pourcentage il faut qu'ils entretiennent euh, l'espoir du peuple en attendant ñuy ñuy ñuy ñuy gis buntu yi tamit loolu kay kenn kenn mënu leen ko tere pour combien de temps ah Macky Sall tamit daf na ko de. non bi mu ñëwee dafa dafa dafa dafa lancé les loups sur vous de. Ah, ah si ah si. may mun a nañ waxante rek li li nekk dëgg moo sakkat. ak lu mu metti metti metti da ngay ak nit ñi wax leen li mën a nekk man kat defoon naa ne mun naa def lii ak lii ak yi naam dinaa ko def waaye nag jamono bi moo bëggoon def jàpp naa ne tey mënu mu ko def ci jamono boobu loolu moo gën xam nga bi ñu bi Macky Sall lancé la traque des biens ak yi sa naataango yi nekk TFM dañu invité jamono boobu man leen li may bañal Macky Sall mooy tout son mu consacré ko ci traque des biens mal acquis dépensé ci cent milliards te buy récupérer du récupérer dix milliards et c'est ce qui s'est passé indi na ko ay problème indi na ko ay coow def na ay poursuite lan lañ ci jëlee dépensé ci xaalis bu dul jeex fay ay avocat ay commission rogatoire lu nekk dugg nañu ci au finish rien ñii tamit ñii tamit bu ñu bëggee jëmale réew mi kanam wax yoo nga xam ne teguwul fen pour jël un exemple dañuy wax toujours Covid fonds Covid euh, dix euh, mille milliards la Cour des comptes wax ne am na six milliards yoo nga xam ne gestion bi jaarul yoon. Mhm. jaarul yoon ça ne veut pas dañ ko détourné ci biir loolu ma jël ci benn exemple muy un agent bu nekk au ministère de la santé dafa fay ay travailleurs ay nit yoo ay prestations lañ defoon mu fay leen par Orange Money ak Wave. inspecteur xamal ko ni ko du orange moom ak wéegu woon fay mais mandat nga waroon def c'est une faute de gestion parce que mandat la waroon fay. mais dañoo lever woon président dañoo dañoo dañoo lever woon euh, dañoo bloqué woon le code des des de des des marchés. Euh, alléger la les les procédures de la comptabilité publique. oui tout à fait tout à fait donc xëy na loolu sax bokk na ci ko li ko encouragé woon au lieu mu woo may mu a man ne ca Kaffrine ni ko ñëwal Dakar mu gëjël sa mandat may mu ni ko yónnee mu ko xaalis mu def ko wax mu am traçabilité te terewul loolu ñu considère que faute de donc boo jëlee yu mel noonu 1000 milliards 400 milliards 300 milliards 29 milliards ni moom ngay toppee ay nit te man dama doon ñaan yooyu man su ma ci bokkoon dinaa def tout non seulement ñu publier les rapports mais après la publication des rapports s'il y a lieu ñu def ay procès nga seetal sa der Sénégalais yi xam ne lii ñuy wax reposé wul ci dara donc suñu bëggee diriger réew duñ ko teg ci ay comme li nga wax léegi entretenir l'espoir yaakaar loo nit ki jëm lekkat gu deful dara nga tegal ko nit ñi mu defe ne daraa ngi ci muy yaakaar mais yaakaar dafa mu yem dafa am fu muy yem or soo waxee ak nit ki dëgg lu mu metti metti metti dara nga xam ne lii nga leen wax muy dëgg ñu mën a dox ci loolu mais leneen lu ñu jël lu dul loolu on va droit au mur te dal ci mur bi arrangé wu leen ñoom ñu nekk au gouvernement arrangé wu le peuple te ñun en tant que politique au delà de bëgg naa falu bëgg bëgg naa jël nguur bëgg naa lii ak lële li ñu war a intéressé dëgg dëgg dëgg mooy naka lañ mën a def pour askan wi mën a génn ci ay jafe-jafe te loolu mënoo ko def te waxoo nit ci dëgg mënoo ko def te waxoo nit ñi lii ma defoon ni mën naa ko wàññi mënuma ko wàññi woon boog manuma ko léegi ndaw ñi nga xam da leen diggoon emploi mu wóor leen fii nga toog nii la ñu doon yaakaar mënta nekk nga wax ko ak ñoom mais bu dul loolu danañu dugal réew mi ci difficulté moo tax d'ailleurs j'ai l'habitude de dire que ñaari yëf bu ko réussir man ma sant yàlla mm. la sécurité du pays ñu sàmmal ñu ko réew mi bañ a déstabiliser c'est tout ce que moi j'attends